dafay nekk koo patriote là, patriote la koo xam dafay bëgg Sénégal ñëpp gis nañu président Déthié Fall dafa am qualité boobu qualité c'est un vrai patriote sort le président boo xam ni day président bu compétent président Déthié Fall tey Sénégal ñëpp xam nañ ni sa compétence kenn weranteetu ko tey Macky Sall bu amee problème tey au niveau de l'Assemblée nationale ginnaaw liggéeyu coalition bi yëpp mais ñëpp pas nañ ni président Déthié Fall moom mooy architecte bi président bu am fit tamit soxla nañ ko ndax tay Sénégal tay ni ñu ni ñu européens yi téye suñu économie ñu war a fippu pour amaat suñu souveraineté suñu souveraineté culturelle suñu souveraineté économique ñu soxla ko dafa am fit pour mën a jàkkaarloo ak ñooñu président Déthié Fall tey ñëpp xam nañu fit mooy qualité première pratiquement parce que c'est un ancien militaire ku ko gis xam ni borom mi fit la soxla tamit un président rassembleur ko xam day dagalé ndax Sénégal day dafa tasaaroo président Déthié Fall boo ko c'est un homme qui rassemble coalition yewi Askan bi nga xam ni PRP moy le dernier parti pratiquement le président de Kefal, par son talent de rassembleur mo rassemble ñep ba tay siège bi PRP moy siège yewi Askan bi dem ba dagalé ñaari coalition coalition yewi ak coalition walu boole len day wane que c'est un homme de rassemblement donc toutes les qualités yi nga xam ne dañ ko soxla si président dañ ko gis si moom Sénégal yi doon ko laaj moo tax tey bu wuyoo sénégalais yi daal di ne fas na déglu seen wax pour présenter candidature am dañ ko si remercier di ko si jaajëfal am yaakaar bu bëri nag si moom pour que comme ni nga ko waxee Sénégal problème yi ñuy dund problème économique ñuy dund problème emploi yi ñu am problème mu dund yi ñu am problème sécurité yi ñu am yëpp ñu mun si trouver des solutions ak comme ni mu ko waxee tamit woo tous les sénégalais ñu ñëw autour de lui pour ñu concocter un véritable projet de société donc ñu am rafet bu baax a baax ci sa déclaration. xam nga dañ naan lu yomb sax baaxul lépp parce que président de la république mënul yomb surtout contexte bi ñu nekk bu yomboon sax du ci soobu wante nag comme ni ma ko waxee président Déthié Fall boo gisee dafa am envergure nationale il aussi PRP boo gisee parti boo xam ñaari at la am nga gis tey ni mu mel biir Sénégal gis président Déthié Fall li mu joué ak aussi fi ñuy appuyé wu il y a mouvement yi nous soutenir sa candidature kenn xamul lu mu toll ñu war a donc tout le Sénégal en tout cas dinañ def liggéey bi war du yomb nam mais nañ def liggéey bu war pour convaincre Sénégalais bu woo bépp sénégalais yu nekk biir Sénégal ak yu nekk si bitim réew ñëpp ñëw ànd ak ñun jàpp si projet bi waaw. Mhm. jaajëf merci bien jërëjëf. bopp mais àndandoo waat aussi joxe waat joxe waat loxo ci li nga xam ne si ne moom mooy déclaration bi nga xam ne président def na ko ngir échéance yi nga xam ne ne dina ñëw ñu def la tout ba teg ko ci ci tetu république du Sénégal te loolu jàpp naa ne incha allahu rabi suñu borom santala dinañu ci may lu kawe suñu njort ndax bu fekkoon ne dafa ñëwoon rek ci politique ngir toppaate ñëpp xam na ne kon du jógee ci ci fi nga xam ne fa la nekkoon te bépp privilège mënoon na ko fa fekk mais dafa bàyyi taxaw ci wetu askan wi taxaw kim taxaw ci wetu askan wi nak tay moko may li nga xam sene mom la mom la mom la am tay je vous remercie assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Audio Jungle.